asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo gis naa seen i question si instagram bi gis naa ko sur youtube bi mooy lan mooy problème entre Niakhaté ak kii di Abdou Diallo def naa si sama benn gëstu benn recherche bu xamante ne dinaa leen ko andil andil ay leeral wax leen problème bi fa la jógee donc mais avant ça nag képp ku bëgg a gis Mohamed Bernabeu képp ku bëgg a gis Mohamed Parc des Princes Camp Nou Vélodrome Old Trafford xam nga donc Stamford Bridge maanaam stade yu mag yooyu noonu wala gis ma ma toog benn toog ak benn babu jóoku toog ak benn sofian jub fekk leen europe lenn rek ngeen di def c' est simple gars yi te si yéen laa ko yaakaare te xam di ngeen ko def mooy que euh, si manifestation bi mu amee ñu bëri dañoo tresage vpn pour mën a connecté wu donc euh, maintenant yéen ñi am vpn nekk fii ci réew mi c' simple avant ngeen di seetaan vidéo seen football tv dem leen si vpn bi Euh, connecté leen soo a seetaan vidéo euh, Mouhamed loolu daf may dooleel loolu daf may jàppale bu baax a baax yéen ñi nekk fii ci réew mi yéen ñi xamante ne amoo leen ko euh, dem leen seen benn xarit seen benn frère seen benn sœur seen benn oncle mu télécharger leen application bi comme ça da ngay ni cliquer lu simple la da ngay cliquer soit nga nekk France boo neex nga réew bu sa bopp États-Unis Hollande yow yaay xool Allemagne fu la neex boo defee loolu ba pare nag nga ñëw si sama vidéo seetaan ko moo xam ndax yow ay données ngay connecté di Tigo di di di Orange di Expresso moo xam wifi ngay connecté ak boo si mën a def si ñaar yi avant ngay seetaan vidéo seen football TV defal loolu franchement di nga jàppale Mouhamed te incha allah fii léegi un an deux ans li nga bëgg noonu ma def ko. toog ak Sofiane Diop li nga bëgg ma dem si booy business no yi yi gën a xarañ ma toog ak ñoom def ak ñoom émission andil leen ko incha allah bu neexee yàlla dama leen koy andi donc VPN ngeen dem ngeen dooleel ma bu baax a baax parce que kii di Aliou Cissé nee na jot na Mouhamed nga dem Allemagne ma ne ah. coach bëgg naa la lool mais euh, loolu nag ginaa suñu borom samay internet laa si yaakaar Formose Mendy tamit démb nee na ma Mouhamed il est temps bu ma gisee sama mi ma euh, Iliman Ndiaye xam nga di nga am lu raw lii lu raw loolu nag pour ma am que ci yéen laa yaakaar parce que yàgg ngeen ma ñaana lool noonu donc VPN ngeen di dem ngeen connecté ngeen soog a seetaan vidéo Mouhamed Senfootball TV te incha allah fii rek un mois dinaa ko def xool ba xam ndax yéen a ngi koy def ou pas yi avant ma ñëw sur le dossier Sombouya Diop ci kanam xaar lañ ko euh, donc ak le niveau de Sadio Mané bi nga c'est inquiétant propre rapport ak entraînement yi ma gis damay ñëw ci question bi nga xamante ne temps yëpp day ñëw mooy ñaxate ak Abdou Diallo la ñu euh, la moy problème bi ñëpp seetaan nañu image yi xamante fédération sénégalaise de football duul naka YouTube euh ki di ñaxate di nuyu Abdou Diallo Abdou Diallo nuyu ko sénégalais yi ñaawlu ko ñeneñ na noonu nuyu na ko avant ñeneñ na graw, ñeneñ na graw na donc ñëpp di ma poser question c'est quoi le problème Au système bu na la c'est quoi le problème ni ngeen ko ni ngeen ko gisee noonu la gisee mënu ma ñëw tëb tëb rek parce que dama bëgg ay vues wala bëgg naa lu neex nit ñi wala bëgg naa def vidéo ma ñëw wax leen te def ma si gëstu franchement man melu ma noonu après def naa sama recherche si ay collègues yoo xamante ne ay journalistes la laaj naa leen question ñu xam lu ñu ci xam avant ça aussi am na benn internet bu ma jàppale ci commentaire nee na si ku la nag ci li ma xam euh, Abdou Diallo rakam bu jigéen euh, gelu kii la woon euh, gelu Moussa Niakhate loolu daal xam naa ko waaye xaw ma na la ñu mujjee après après à partir de cette information keneen xamal ma benn journaliste de la place xamal ma ne Mouhamed kii di ñaxate euh, moo takk rakku bu kii di euh, Abdou Diallo donc euh, goraam la man yemuma foofu après ma def Instagram moo xool ndax ñoom ñaar ku nekk abonné sa morom. kenn abonné wul sa morom ma xam ne y'a problème nag ma xam ne y'a problème beneen affaire bu xamante ne mën naa ko jox kon information am na benn journaliste bu nekkoon si pro affaire bu muy am mu ngi foofu mais nee après mujj woon na nuyu mais pour man erreur bi si fédération sénégalaise de football ñoo def maanaam kii dugal vidéo bi bu ngisee ne lii mën na jur polémique image bi dañ koy couper sànni fële boo gisee loolu nga jéem a waxtaan ak Aliou Cissé wala ñi nekk foofu noonu dirigeant yi ñu jéem a régler le problème benn sénégalais du xam ñëpp mën a concentrer sur le match de Bénin ak euh, Brésil mais boo ko tegee si public bi rek ku nekk di ciy wax ku nekk day wax xalaatam propre à man nag gëstu boobu laa def ñu ne ma euh, kii nii euh, jabaram la mën a xam ne. problème amna mais c'est plutôt familial concerné ñu ñun football donté nak li ñu gënal moy que ñaar ñi ñu ànd ak foré loolu dañu xam buñu sañon non lay démé mais comme que problème familial la dañuy wax ci l'aspect footballistiquement parlant ci ñaari joueurs yi il faut que joueurs yu un caractère lañ leadership lañ et ces deux personnalité mësu si euh, le cas de Abdou Diallo que ce soit Zilte euh, Vergam euh, Monaco Dortmund Mayence Paris Saint-Germain si Leipzig mosoo dégg ben problème Abdou Diallo irréprochable que ce soit Niakhaté Valenciennes Metz Mayence Nottingham Forest mosoo dégg ci moom euh, problème au contraire c'est des joueurs yu xamante ay exemple lañ boo xoolee Nottingham boo xoolee Mayence euh, capitaine penalty dañ ko daan jox kii di ñaxat boo xoolee keneen ki Abdou Diallo dañ ko daan jox capitaine équipe de France espoir donc c'est est des joueurs yu xamante ne ay exemple lañ sax pour seen i coéquipier donc c'est deux jours joueurs intelligents yu xamante ne ñu yeewu ñu xamante ne boo toogee boo toogee ak ñoom le problème ça va se régler maintenant nag c' est un problème familial bu xamante concerné ñu ñu Sénégalais mais lu ñuy ñaan mooy que yàlla euh, tab xol yi mu mu mu mu yaatal ko ba kii di ñaxate ak kii di Abdou Diallo franchement ñu ñu xam ne ñoo bokk Sénégal gaal gi ñoko bokk ben objectif lañu am moy dem jëli waat coupe d'afrique xam nga donc match amical bi nek suñu suñu kanam aussi ñu do brésil lu mëna nekkal donc loolu la mëna wax et aussi tamit football maa ngi cette semaine bi laa ak seraan mooy Olivier Decour ancien joueur de Leeds United AS Rome wala sax Inter ngeen xam ko si plateau Canal Football Club moom ak Habib Bey Olivier Decour su benn euh, reportage dañ ko posé question mu ne moom il a fallu mu dem Inter de Milan pour xam ne ndekete mën nga nekk joueur sans pour autant xaritoo ak sa koy coéquipier moom pour moom

xam nga dañuy reyante pour que public bi kontaan dañuy reyante parce que dañ leen fay salaire ñenn nag dinañ ma wax mais Mohamed exemple boobu ak Sénégal du benn c' est vrai que exemple boobu ak Sénégal du benn parce que lii club la euh, lii équipe nationale du Sénégal la parce que équipe nationale du Sénégal yow Sénégal gépp dañoo tànn 26 joueurs nan la yow yaa ñu war a représenter donc yow daa am benn comportement boo war a am xam nga donc parce que à lui si dans le passé gis ngeen la ka ak Demba Demba Demba Ba gis ngeen kaam ak karamboj Mbodj dafa bëgg a joueurs yu xam ne ñu am état d' esprit xam nga donc ay joueurs yu yoo xam ne irréprochable benn Moustapha Nam par exemple doon toj Paris FC ñëw na Coupe d'Afrique ba jeex jéwul benn minute et pourtant bi ñu ko gagné voilà moo gën a jooy moo gën a kontaan parce que Gana Gueye dégg naa si benn benn benn kii bu mu doon def ak Bouba Ndour si je me trompe pas TFM mooy émission bi xam na ngay dawal oto bi nii muy wax ne ñoom bu bés bu ñu nekkee benn ñeen Coupe d'Afrique yi ñu ñàkk yëpp loolu avant Coupe d'Afrique la ko wax dañoo nekkul benn moo tax mais bés bu Sénégal nekk benn maanaam ñi di titulaire ak ñi di remplacer nekk benn bokk benn positif dañuy am ndam moo Coupe d'Afrique bi mu jeexee ñoom ñëpp exemple boobu lañu joxe dañ ne Sénégal lañu nekk benn moo tax suñu borom suturaal ñu coupe bii nii yeneen yi voilà da ngay da ngay kii ñu tekk ban mu mer ñëkk te loolu day feeñ ci état d'esprit bi moo tax Aliou Cissé dafa bëgg ay Aliou Cissé moo ak Deschamps ñooyam dafa bëgg ay joueurs yu am état d'esprit joueurs yu caractère yeneen yi sax du leen du leen neex ba benn Nasri par exemple loolu am ak Deschamps ay Benzema yooyu dañu am problème Deschamps ak loolu non. moo tax Deschamps il préfère en 2018 mu yóbbu ay Florian Thauvin ah, donc avant ça euh, en 2014 mu yóbbu ay Cabella

et pour ces deux joueurs là ces deux joueurs yoo xam ne personnalité yu intelligent yu yeewu et je pense que dinañ def peut-être li xamante affaire de famille la ak li xamante Sénégal moo ñu donc man démb dem naa à l'entraînement des Lions euh, def nañu benn tóoro dugal na leen ci si chaîne bi ñuy passe Pour di ki pour vous dire que ne bon gisuma la ñu contenté kaf reetaan mais bon c'est le minimum quoi football ñu kaf nañu football ñu on chose donc il faut essayer de régler le problème et eh, après jalé ci lénen parce que li mom erreur bi rek moy wonu ñu ko won posté bës biñu ko posté le problème bi fofu la nek donc man dal lim leen mëna wax ci gëstu yi mu def c'est ça trois affaires yi japp naka lah moy instagram ku nek ñom ñaar follow followul sa morom euh ki euh, mo takkon ki ñaxate mo tak euh, eh, rakku abdou diallo lolou mën na leen ko wax et eh, que abdou diallo aussi tamit ak ñaxate mu jëna nuyo fofu su kenn ko xamantene mo won ci place bobu lolou daal mën na ko wax gaay euh, ngeen ko am ko comme information pour ñi ne mohammed mais ñaxate dafa abdou nga xam ne ñaxate moo gën a ne en que bu ma demee à l' entraînement gis naa ñaxate moo gën a nekk euh, en forme parce que bëri na ay ñu ko doon jéem a dribble ay Sadio Mané ak euh, Nicolas Jackson mais yéen jël seen bal et que euh, Abdou Diallo benn lecture de jeu bii doon def force dama gis ne xaw na jël poids parce que rotation pour mu defar c' était tout un problème Aliou Cissé arrêté jeu bi pour wax xool wax kaas nii xam nga pour dire que ba fekkee la forme du moment c' ñaxate. mais c'est deux jours yu xamante ne bu ñu débat bu ñu ko yóbbu si côté boobu noonu bu ñu ko yóbbu si côté boobu mën na jur yeneen polémique yu xamante ne jaru ko en tout cas place yi le plus méritant lañ koy teg képp ku la mën a gën a jox ndam par rapport ak li mu gis loolu la war a def donc je pense que suñu borom la ñaan. bu fekkee problème de famille la suñu borom sutural leen ba problème boobu ñu jóge ci ba ñuy ñu gis yeneen image yu xamante ne dañuy kaf dañuy ree dañuy bëre ñu dugal image yooyu noonu Sénégal gi kontaan donc lii rek lañ ci mënoon a wax mbokk yi wax leen ngeen resté connecté ndax vidéo dossier Soufiane Diop fu mu toll parce que actuellement moo ngi Sénégal dina leen ko ak euh, Sadio Mané ak ni bi mu yor ni jamono bi aussi dinaa leen ko andi ci kanam resté connecté et que VPN boobu aussi bu leen ko fàtte jaay leen wax ba beneen sur seen football TV